bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi fi teew ñu leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaar di leen baalu àq di jiital ci ziyaar beeg nuyoo gi sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal it sëriñ Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal bépp xalifa Cheikhul Cheikhul Xadim di ko ñaanal képp kuy yëngu ci lislam bëgg mu jëm kanam rek suñu waram dooleel la kattanal la defal la tawféex ba nga am ci lu sa njort waaye da ci toftal suñu bàyyi suñu magu daara muy baay Diop di leen xamal ne mu leen di jottali nuyoom ak ziyaaram képp koo nga xamante yaa ngi daara ji ak ki fi teew képp ku fi teew rek jokkoo nañ tey amoon nañ yéene ñëw waaye xëy na yaramam moo sutante ba mënta ñëw xaa ñu gën ko doole ñaanal rek suñu borom kàttanal ko defal ko tawfiix ak i xewal wala lépp mu am ci yéene ci yoon bi rek mu def ci lu kawe di ko ñaanal it képp koo nga xamante ne yaa ngi ci daara ji te aju ci ginnaawam suñu borom defal la tawfiix ak i xewal ba lépp looy séntu ci yoonu Cheikhul Khadim bi nga am ci lu kawe sa njort waaw di nuyu itam suñu euh, jëwriñ sëriñ Mor Sey moom wax dëgg yàlla euh, kilifa ci daara ji it mu ngi ci dox dox yu am solo kon ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax di nuyu suñu jëwriñ sëriñ ba Ñang di nuyu itam képp ko nga xamante ne rek yaa ngi ci biir daara ji waaye nag di nuyu ñii nga xamante ne ñoo fi ñëkk di seen tànk ñëw te dara taxu leen jóg lu dul liggéeyu Cheikhul Khadim muy sëriñ maam Thierno Amar di sëriñ Assane Baye Fall di sëriñ maam Xaas. sëriñ Mor Sey ak sëriñ Góora ñëpp ñi nga xamante ne ñëw nañu rek ku ñu lim ak ku ñu limul ñu ngi leen di ziar te leen ñaanal tànk yi nga xamante moom la ñu yëkkati yal na ko yàlla def muy tànk yiw ñu yàgg di ko dox te mu bokk ci liggéey yi nga xamante Cheikh Khadim gërëm na ko ñun nag suñu soññee moom ci wàggu màggal gi moom du mën a sori ndax daanaka li nga xamante ne moo ci war dëgg dëgg dëgg dëgg borom xam-xam yi wax nañ ko ñi nga ñoo ñu gën a féete taalibe wax nañu ko kon li ñuy ñaan rek mooy lépp lu ñu fi génnee ci kàddu te mu jëm ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi yàlla ñu yàlla dafa dégg ak topp ñun ñëpp ñu ànd ca fi ñuy soññee rek mooy suñu biir ñun ñi nga xamante ñoo ànd di liggéey ngir jëm Cheikhul Khadim ñu gën a fonkantewaat bu baax a baax a baax a baax ñu gën a jàppantewaat bu baax a baax a baax ñu gën a wóolantewaat bu baax baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla lii lépp ci nettali lay mujj kon lii nga xamante mooy liggéeyu Cheikhul Khadim bii te ñu boole ñu te xamuñu ban motif moo tax ñu boole ñu nañ ko fonkaat te jàpp ko rawatina ñii nga xamante ne ñoo nekk moroon te ku ne xam na ne moroon moom wax dëgg yàlla mosul des ginnaaw ci lenn kon kàddu yi ñu fi yëkkati muy ay kàddu soññee kàddu yi nga xam yëkkati muy ay kàddu ay kàddu ay kàddu ndénkaane ku ci nekk ci ñoon rek na ko jàpp jàpp ko mooy sa soñ bopp ñu góorgóorlu ci bu baax a baax ndax daara ji wax dëgg yàlla am na nu mu daan doxee ba ñëpp ràññee woon ko kon bu ñu demee ba duñu soññ rek nañu jàpp ne ci ñun ñii la nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax màggal gi nag moom ah, ñëw na yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ah, defal ñu tawfeex ak i xéwal ba li nga xamante ne moom la sëñ bi bëggee ñu màggalee ko ñu màggalee ko na te mu nangul ñu ko waaw foofu daal la ñuy wàcce suñu kàddu euh, jox suñu jëwriñ sëriñ ba ñang mu gën a leeral gën a yaatal te ñaan suñu borom defal ñu tawfeex bu baax a baax a baax ñu ngi jéglu ñëpp te baal ñëpp ak mbooloo mi ñu ngi leen di ziar di leen màggal di tuub tey jégalu bu baax a baax di jiital ci ziar bi sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér naka noonu itam ñuy ziar sëñ Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal itam mu yàgg fi lool te wér di ziar sëriñ Touba yëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér la ba lépp loo xamante ni namm nañ ko ci tool lislaam bi yàlla na leen yàlla teg loxo ba mën koo matale ci seen teeyu bakkan barke Cheikhul Khadim di ziar euh, waa daayira Touba Morone ci njiital sunu jëwriñ sëñ Moussa Dione ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar itam ki nga xamante ni mooy suñu baay di baay Diop euh, di ñaan yàlla na yàlla may ko wér ak itam. Euh, waa fédération bi nga xamante ni ci njiital euh, sëñ Yankhoba Gueye ak euh, jëwriñ sëñ Bamba mii nga xamante ni moom lañ taftal ci moom mu mel ni am tey ay gan yoo xamante ni gan yu taw feexe leen ñu bokk ci waa fédération bi mu mel ni sëñ Maam Thierno Amar mu ngi fi teew na fi sëñ Assane Baye Fall sëñ Modou Sey mi ci ginnaaw Baye Lay ak maam Xaas mi nga xamante boo leen gisee rek mel ni gis ngeen waa fédération bi ndax ci kàddu waa fédération bi leen ñëwee kon nag dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ci tànk yi nga xamante ni yëkkati ngeen ko dox ko ñëw ko ba fii ngir waajal li nga xamante ni moom mooy màggalu sëñ Tuubaa gi kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni dal leen ak jàmm di leen wax ni daayira Touba Morone ñu ngi nii mbokk taalibe yaa ngi saa su ne nii leen koy jàppoo guddi àjjuma ju jot di fi liggéeyal sëñ di ko jaamu borom bi di jaamu borom bi di ko liggéeyal sëñ kon nag euh, xam naa ni comme kan dañoo am tey ay gan suñuy kàddu du du du bari dañuy bàyyi gan yi rek xam naa ni ñu yor kàddu yi bu ko defee euh, euh, wax li nga xamante ni mbooloo mi moo leen moo leen tax a jóg ñëw ci biir mbooloo mi ngir lan la ngir waajal màggal sëñ Touba gi ngir lan la caravane boo xamante ni waa fédération bi ñu ngi koy def depuis bi safar gi teeroo ba léegi mu mel ni ñu ngi dem ci ay daayira yu bëree bari di di ci biir daayira yu bëree bari ngir lan ngir waxtaan ak mbooloo mi ngir lan ngir fësal seen yéene ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga xamante ni moom la fédération bi ngànk fii ci biir Argentine ba ko yeggee mbooloo mi naam mbooloo mi sax xam nañ ko waaye ndem safar gi dafa ñëw ñuy waajal màggal gi rek looloo indi seen i tànk fii kon nag xam naa ni dañuy wàcce foofu suñuy kàddu jox mbooloo mi kàddu gi ci sëñ jëwriñ sëñ Assane bu ko defee rek mu ubbee ko waxtaan ak mbooloo mi jox jëwrin yi itam ku ci ne fësal sa yéene ñu ngi tuubal mbooloo mi yëpp di leen wax baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.